asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku internet du seen football tv nuyu naa leen bu baax a baax ziar leen képp koo xamante ne ci chaîne bi bul xaar aboneel cliquer ci cloche boobu ngay gis vidéo bu ñëw nga mën ko seetaan bul fàtte tamit aimé vidéo bi c'est très important tey ne dañu ñëw wax ci Idrissa Gana Gueye ak Pochettino comme ni ngeen ko gisee Paris Saint-Germain Manchester City da leen fekk seen dëkk dóor leen 2-1 ñu def premier mi-temps bu baax mais deuxième mi-temps kenn xàmmeetu leen ba suñu gaynde bi dafa mujjee am rouge premier mi-temps bi nag Gana Gueye def na match bu mucc ayib ci côté récupération boo gisee rek équipe Paris Saint-Germain da ngay gis ne défensif def énergie terrain même entraîneur bu Pep Guardiola na ko ba tax dafa yàgg wax ne Paris Saint-Germain milieu bu doxee rek Neymar Mbappé Di Maria keneen ak keneen di nga waral premier temps ñu gis Idrissa mu joxe lépp lu mu mën lu mel day tax ay Neymar Mbappé def deuxième mi-temps même spécialistes yi nekk fële ci France muy l'équipe du soir émission boobu muy LMC Sport ñom ñep dañoo reconnaître que né deuxième mi-temps Gana Gueye ni mu man ci équipe bu Paris Saint-Germain kenn mënu ko maanaam Verratti da ngay gis né condition physique bi c'était compliqué Neymar Mbappé ñeneen ñi effort yi xamante ne Gana Gueye dina ko def do ko gis ci kenn ba tax ne donte rouge nañ ko rouge bi c'est normal amul débat dafa deug gund gan suñu gaynde bi nak ci réseaux sociaux manam Instagram wax na nee na bi muy génn xëy na neexu ko woon waaye jàpp na ne ñoom Massirou Touré bi mën nañ qualifier ay coéquipiers mën nañ def différence keneen ko xamante ne wax ne muy Pochettino muy entraîneur entraîneur argentin bi nee na intervention bu Idrissa Gana Gueye moom baaxul mais football la li nu mel du lu bees ba tax na jàppee ko Idrissa Gana gay ndax boo xoolee rek. si seen jongante contre Bayern Munich Pochettino moo doon wax ni Gana Gueye machine la. loolu sax du premier entraîneur bu ko waxe bo len faté ko rek ci ginnaaw Thomas Tuchel si sen jongante contre Real Madrid même mobile utilisé won Gana Gueye machine la. dem nak match bi mën won def lépp surtout deuxième mi-temps ku xam Manchester City ak Pep Guardiola xam mu téy possession bi rek da ngay daw fu nek waral soxla won na bu baax a baax Verratti daw mais da ngay gis ni Verratti condition physique bi c'était très compliqué donc mbokk yi lii la ci commentaire mën ngeen ma wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur seen football TV bye bye